mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci xew-xew jamono bu doy waar benn waay buy wuyoo ci turu Adama Mbaye moom la yoon rek daal di teg loxo ginnaaw bi nga xamante ni door na soxnaam ci parti intime yi maanaam ci awram Adama Mbaye fukki fani kaso la ko tribunal correctionnel bu Jurbel daal di daan loolee nag la ko waral moo di dafa daal di dóor jabaram maanaam dafa def violence conjugale waaye nag fam ko def moo doy waar ndax bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ci partie intime yi maanaam ci awram yi la ko dóor Dóor loolee nag la ko waral moo di dafa bëggoon tëdd ak soxnam si waaye loolee nag la ko soxna si bañal ba mu meer loolu daal koy xëcc karaw ko diir ko ba ca biti daal di jël ab bant rek dóor ko ci awray soxna si mbir yi nag mu ngi xewee ca guy gay séeréer nekk ca commune bu Nindi département bu Diourbel la moom Adama Mbaye nag ginnaaw bi nga xamante ni rek taxaw na ci kanamu àttekat yi foofe ca tribunal bu Diourbel dafa daldi rek weddi tuuma yi nga xamante ni def waaye nag lu yàggul dara ay minit rek ci la dal di avoué ni moom moo door soxnaam bu ñu sukkandikoo ci nday mbir léegi nag moom nee na guddik 13 jàpp 14 août ci la bëggoon a am ay rapport sexuel moom ak soxnaam di wuyoo ci S Diagne waaye nag li ko soxna si tontu moo di dafa xaw a feebar ba tax yaramam nanguwul waaye nag jëkkëram ji di Adama Mbaye gëmul woon loolu ba tax rek mu daal di amal acte bi moom Adama Mbaye nag ay atam tollu na ci fanweeri at ak benn jot na am ak euh, soxnaam si ñaari doom leneen nag loo xamante ni waa ji xamle na ko nee na nag dóor bi mu ko dóor fa fee ci ay awraam jublu si woon gaañ ko waaye rek daf ko bëggoon a corriger nga xamante ni beneen yoon du ko def waaye nag ki nga xamante ni moo di ndayi mbi léegi di soxnaam di wuyoo ci turu S Diagne moom nag li mu xamle moom moo di jëkkër ji moom moo def exprès daat koy dóor foofee beneen mbir boo xamante ni soxna si xamle na ko xamante ni jëkkër ji ci partie intime ci la daal di tàggaliko ak sagoom ba tax xamatuloon fu mu nekk te nee na nag mbir yépp mi ngi xewe ci kanamu gorom bi ba léegi soxna si nag lim xamle nee na ginnaaw bi mu perte connaissance nag fa mu yeewaate moo di ci loxoy médecin yi waaye nag ginnaaw ay jaamu ndax daal dinay baal jëkkër ji lim ko doon toppee lépp nam nag baal na ko waaye yoon moom day def liggéeyam ba tax nag mu daal di koy condamné rek fukki fani kaso yoo xamante ni daf koy tëdd mu nekk ab avertissement